waa ji day nee na kilifa diine la dee c'est ay dara waaw moom daal min naa na ma la jël di koy tëj ca biir néeg ba daal di yegg na kon te lu tolloo ñeenti fanu yàlla laa la wax allahu akbar ma ne la xale bu jigéen bi fukki at ak juróom-ñett la am f dembele lay wuyoo doomu Mali la wutub liggéey de ba yegg na ca Sicap Liberté de googee waaw waa ay dara day ne ko nag dikkal ma jël la nga liggéeyal ma ay taalibeem daal di koy jàppale mu daal di jàpp ndaw sa yeew ko takk ko di yegg ca lu tolloo ñeenti fatu yàlla benn illallah enquête yéene kaay ne sàcc a bees day la mbir ma xew ma ne leen day jaal waaw daal dinañ koy tegub loxo ginnaaw ba doon jéem a sàcc lu toll ak ñeenti gone bokk na ca benn bébé boo xam ne day benn at la am allahu akbar la ilaha illallah réew mi quotidien xoolal ma doomu aadama yi nga xam ne kon dañ leen a rey ak accident yi waaw ma ne leen njeexalug abile miti na lool lool lool lool benn français day dañu koo rey ca somon allahu akbar benn ndaw soo xam ne tamit dañu koo fekk mu dee ca terminus la allahu akbar benn waa joo xam ne tamit courant ba commence mu dee ca diwaanu Kaolack allahu akbar ñaari oto yoo xam ne kon maanaam ñoo dëkk benn waay ca diwaanu Touba allahu akbar benn gaskatu teen wu dee ca Cilmaxa allahu akbar sur sa année Macky Sall nguuram gi la di bëgg a rey nit ñi émergence ba mar naan daal di rey naan ngee benn waa xam ne kon gaskatu teen la te teen bala daanu ñàkk ba kanam te jamono jooje nit ñi dee waaw ma ne la politiciens yi day seen élection nañu dal de sur moo taxit opposition bi dee dañ ko cay delloowaat tey jilee dañuy amal ne kon ab doxum ñaxtu ngir wàllu bi élection yi rek ak kon waajaay ga processus électoral ba tey jile ci àjjuma ji laa la wax la opposition bi bëgg Sall fal koo xam ne day tëddee njaaxaan naay mu see élection waaye fichier électoral bi nga xam ne tamit day Macky Sall ak waa këram ñoo ko yor boole wuñ te kenn ab solitaire lii lañ bëgg mu dak nangu carte électeur u ñi waaye gis nga bi ak Sénat ak ah, conseil constitutionnel waaw lañ jëm kon ab baraamu tuuma laa wax évidence yéen kaay ne ni ñu fas yéenee contrôlé nag signature yi bi dee front de résistance waaw ña ngay naxarlu ni conseil constitutionnel dañuy contrôler nag wàllum parrainage ya opposition bi de front de résistance waaw daal dina ñuy naqarlu bu baax a baax nii nga xam ne kon la ñuy convoqué candidat lu tax tey ci àjjuma ji seen xel day na ca Mamadou Diop Decroix ak ñama àndal day waaw nee nañu seetlu gi nga xam ne kon moom la naqarlu candidat kon ni ñu leen convoqué ci àjjuma yi tey te conseil te ñoo opposant yi day waaw jàpp nañ ne gis nga convocation boobee def nañ ko ba pare constitutionnel wax na la nan la ñu fas yéenee nag defee contrôle signature yooyee kenn xamu ko de dañoo xëy rek ñu leen dem leen wuy ci eh samba waaw le quotidien yi rekkaay ne njaaxare diis yi nga xam ne kon amal nañ ko day te wàllu parrainage yooyee tax na nag ba opposition bi di front de résistance ba bind nañu kon ab lettre day juróom-ñaari atikat yi nekk ca conseil constitutionnel wal fajri gis nga wàllum vérification signature yooyee waaw les sept sages et le sale conseil constitutionnel 24 heures yene kané amna ci ben borom xam-xam bo xamni day spécialiste la néna ngoy nguur gi nguuru Sall gi mi ngi ak ben mbotum denc ci lay jaar pour éliminer Khalifa Sall mardi tali Karim Wade na termine yene kané Karim Wade day waaw tey la gëna taxaw ngir ñibbisi fi ci Sénégal te weeru janvier bi doomu Abdoulaye Wade bi dinañ ko fi gis ni ko toro sar ma na toro sar maa la ko wax te Karim Wade nak soorale na lépp fi mu nekk ni lée li tax ba wona ñi nga xam nak manam ñom ñoo ànd ak mom day ñu bok ci manifestation yi ñi amal ci réew mi ñax yi waaw waye tamit taxawal ay comité de résistance grave fa seenee xeex en tout cas ñoom bi ñëpp koy xaar Macky Sall ak ministre de la justice am bi la ak gàngooram gi kay waaw saa su ne ñu ngi yëkkati seen kàddu di dànkaafu Karim Wade di ko xamal ne boo fii teg sa dànk kaso ba nga jëm kaso prison le quotidien yéene kaay ne présidentiel ba day waaw candidat déclaré 2012 ak 2019 ñaara ci dundu de Idrissa Seck ak Amsatou Sow Sidibé ñoo ñoo bokkoon 2012 bokkaat 2019 ña des ñaar retraité nañu ñaw sur saane waaye yow ana transhumant ya ña nga xam ne kon nañoo jóge ca opposition ba day dem jàppale ji président Macky Sall ñoom ñëpp ñoo bokk benn sant fay ñoom ñëpp a fay rajo tàkk naay télé ni kama ñoom ñëpp a fay kenn déggatu leen transhumance yi ñëpp a fay kenn da a ko nee kama ana Awa Gaye Kébé kenn déggatu ko ana Omar Sarr Senghor ana Papa Diouf kenn déggatu ko ko ana Modibo Diop kenn déggatu ko nee ko ana Pape Momar Diop kenn déggatu ko nee ko ana Wali Fall kenn déggatu ko nee na kama ana Moussa Sakho kenn déggatu ko nee na kama ana Youssou Diagne kenn déggatu ko nee na ana Gana Mbaye kenn déggatu ko nee na ana Badou Ba kenn déggatu ko nee na kama ana Pape ana Mamadou Lamine Keita kenn déggatu ko nee na kama ana Maître Ousmane Ngom kenn déggatu ko nee waaw da doon investir président Macky Sall de waaye ca ndajama moomee pour Abdoulaye Dione premier ministre nee am na ay libéraux yoo xam ne day ay rabo àll la des libéraux Macky Sall faloo la faate Kër Massar ak Tivaouane Pël déet waay dañu gay ne maa wax xoolal leen ma gox bu toll Kër Massar am benn brigade de gendarmerie ci lu tollal téeméer ak ngeen fukki ci ay quartier genn wàllu million ci ay doomu aadama di fi yeewoo bugaan ngay dañu yemu ca ndaxte njiital gëm sa bopp nee xoolal leen ma Kër Massar ni mu toll benn centre de santé la am loolu xel ko mën a jàpp bugaan ne may wax ñu ñuy forcé nag ay train express régional di ñu forcé tabaxu ab ale bu bees bale di ñu forcé tamit ab aéroport bu bees ngay am benn centre de santé ak benn brigade de Dakar Times te yow ndox mi ñuy naan ginnaaw bañ ko dénkee nag waa France Suez waaw beneen société bu nekk France day enci léegi Senelec la soxla ee eh way samba libération yi ne kaay ne nguur gi kay sànq na SDE giriyee na ko ka giriyee fam liggéey lëkkaloog yeneen i société def ay surfacturation ak yeneen i fournisseur di laal ay commission moo tax Abdoulaye Diarra day waaw tribunal bi daal dina koy daan mu ngir mu fay lu tolloo ñeent fukki millions laa la wax 40 millions jabar ji di yóbbu nañ ko tribunal ka nekkoon tribunal démb day le quotidien yéene kaay nee na ngaaka bi la ndee waaw ak xaadim caam lañ leen doon toppee day faux setal nañ leen ban set we nee nañ loolee amul ñibbi nañ seen kër baax na daal duñ ne justice bi baaxul de waaye lii tëj la ay weer wala tëj la ay at xëy benn bis ne la defoo dara demal ñibbi lu fi ay att di nga ko attewaat fee boo paree ma ne la tëjal